lima bëgg wax fi mooy joor joor lay waxal du question leneen nag mais joor mooy lu ñuy joué moo xam naa nag rôle buñ ko jox loolu nag rôle bi daal moo mel mais pour man moom rôle bi dafa parce que c'est bizarre lu ñuy joué quant à moom man dama kaa bëgg sama xol lu ñuy joué moom xoolal Marème daal na continuer wax nit ñi mu tax sax mu bàyyi lu muy def moom daal na continuer rek man daal Marème rek moo ma gën a neex ci film Marème ak Absa ak Jalika moom Jalika moom amul sens paysan Jalika moom amul benn sens mais nag na xam rorom bi nag moom mel noonu sénégalais nag nañu war a comprendre nag képp koo gis muy joué rorom bi biñ ko joxee il faut il faut nga def ko daal comme niñ ko waxee rek ak rôle bi ni mu demee. waaye mais moom naw naa la continuer ko noonu dégg nga bonne chance nag teg ko foofu noonu fu ko kalee foofu la. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa groupe bi maa leen di nuyu di leen man de démb bu ma seetaanee série bi sama xol bi dafa jeex moo tax dugg woon euh, si kii jabaru biram bi joor ni muy def xale bi daf ma metti moom delloo woon na xale bi yaayam moo gën muy def loolu loolu dara rafetu si en plus Marème sama actrice bi dafa ma neex macha allah loolu moo taxoon li ma naqari woon rek neex na ma sama actrice daal neex na ma man daal maa ngi ci ñaareel bi ñaareel xaritu jëkkëram bëgg naa yi man. Ah, asalaamaaleykum émission film bi ngeen di wane ci Mariam la maîtresse d'un homme marié euh, c'est très instructif am na solo trop trop trop waaw ah, ñoo ngi leen ci ziyaare lu bari ñu leen nuyu lu bari aussi waaye nit ñi dañoo war a comprendre c'est simplement qu'un film pour famille di mën a réaliser di comprendre li xew ci à l'intérieur bu ko defee ñu mën a jël seen disposition ci liki yow mi sëy yow mi yooy baay yow mi xam ne belle-mère nga yooyu yëpp ñu mën a xam na ñuy doxee xam ne l'enfant n'a pas demandé à naître ñu xam ne xale dafa laaj toppatoo dafa laaj taxaw joor war nañoo comprendre ne dafa jóge ci benn sëy jël doomam aussi en même temps euh, rejeté ko kon du mën a bëgg sax waxuma la doomu ex ko épouse am waxuma laa nga xale waaw c'est psychologique da ngeen ko war a comprendre aussi mu xam ne elle a besoin d'un psychologue besoin d'un docteur ndax ñu bëri xamuñu vie am waaw Jalika mi xam ne xaritam la sax xamutoon loolu elle le cache à tout le monde loolu war nañ ko comprendre aussi bu fekkente ne aussi ci lan la euh, dañuy jàngal ci jéem. war na fexe ba palaasam bu ko ñàkk ci di góor góorgóorlu ci lu mu xam ne loo xam ne day indi erreur ci say mu teel cee waxtaan ak boroom këram di diisoo moom bañ ciy dugal ñu bari ndax ñépp ko fan vraiment ci disponibilité am toppatoo jëkkëram hygiène bi am attention xam nga respect bi muy wane aussi ci jëkkëram yooyu yëpp mu ngi jàngal nit ki loolu lépp boo ko defee am looy nëbbu à l'intérieur de toi daf lay rattraper. kon nañ na ci jéggi yi xam ne ñoo ngi sëy ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaw koy jërëjëf. asalaamaaleykum na ngeen def waaw may wax ci bu neex la macha allah neex la bu reflété réalité sénégalais rek liñ ci wane yëpp te reflété réalité sénégalais waaw. waaye damay wax ni joor joor foofu moom li mu def moom rafetul benn nit ki xaritoo nga moom mu lay wax secret mu yëpp jëkkër li muy wax ak yëpp dankan na jëkkëram loolu dañ ci war a bàyyi xel d'habitude jigéen ñi ku la ñee rek ku la naan naan la bàyyil sa jëkkër di problème bu mu mu ñëw nga nettali ko muy wax naan la de nga war a tas da nga war a def da nga war a def nangam bu musee tuuti yi nga xam ne kii dafa intéressé sa jëkkër mais boo toogee sa xol rek ba ngay def loolu moo dal jarit waaw biram bëgg na ko trop moom doo nga la bëgg waaye fi ne def na erreur bu bari lu mu xam wax xarit bi mu ngi noonu mu tasee rek fexe na nu mu ko lijjantee ba am ko di wax ni Marème moom allah Marème moom wax dëgg yàlla ñu koy félicité moom naturellement les jeux film boo seetloo naturellement habillement am c'est naturel bopp bi naturel lépp c'est naturel li muy waxee da nga ni kii li muy joué loolu la jigéen ñi léegi noonu la ñuy pratiquer seen langage seen waxin seen lépp noonu la ñuy pratiquer waaw élève bi kay moo la mu doon ñëw di tëdd si néegu bi ci booba takka guñ ko safar di la woo ba ci biir këram ba ci biir néegam loolu rafetul loolu jigéen bu buñ ko def boo ko def yoo xalaatal ëllëg su tuur dina ñëw waaw looy bañ rek wala loo lebale woon wala looy bañ ñu fay la ko rek nga lebale moo rafetul woon parce que dem na ba comprendre jëkkër ji xam na bu baax ay faible faiblesse am ak fu mu doon jaar ak moo tax defe nee na góor bu génnee ma ngi ca beneen jigéen waaw loolu nañ ciy bàyyi bu baax ku nekk nag buñ la sa bor nga mel la lebale woon moo rafetul voilà lan la moom fenn rek la defee allah mun na toppatoo jëkkër dafa toppatoo famem muy fi mu dugalee doom ji ci film bi fi mu ko dugalee ci théâtre bi yenn rôle yi moom dëgg yàlla loolu moom xale doo ko dugal ci ab sëy sëyu mag boo ko ci dugal parce que bu yàggee day doon fenkat leneen leneen baaxul te ngeen bu koy gis baaxu si moom ñaar ci kii eh, jalika jalika tamit mënul sëy moom du mën a neex moom bu seyaatee fële sax ci waa ji sax loo mën dina neex parce que yaayam li lebale woon la sax maa ngi dégg benn waay naan eh, biram yaayu biram papa yaayu biram ak eh, papa Jalika dañu amoon relation mën na nekk waaye man gëwuma ne biram moo doomu paa parce que biram mënul nekk doomu paa bi ngul bëti di sëy undi di ko forcer pour mu sëy moom biram kee la nag relation yaayu mareem yaay Marème dëgg la film bi wane woon ko mais magam la ñuy wane mu ne dafa tëdd dafa AVC moom la yaay yaay papaay euh, Jalika takkoon yaay Jalika ñëw fexe comme ni Marème def fexe ba dugg ci relation bi tas ko liggéey ko ba mu AVC moom lu mu def yépp mu xam na ko mu koy regretté parce xam na ni doomam li mu li mu lebale woon rek doomam moo koy fayeeku foofu la problème bi nekk te dina ñëw ci kanam waa di wax maire bi moom El Diagne moom li mu def dara rafetu ci dara na yemale kenn xamul ku bëgg ku mu ba yaa ngi ni dàq nga garo mu génn kër gi nga bëgg xëcciti kër yi ne danga koo bëgg ñu ko jéema utal làmb waaw li mu def moom rafetu na yem place am ko toppatoo moom it narul am lu baax waaw parce que benn doom bi réglé wul kële mi ngi fexe dama lay lijjanti li lay jàppale ngay utub làmb di uh, dem ci ay sëriñ di créer ay problème ñu ci bàyyi xel loolu dong moo si dëkk bi waaw ñu sëy seen bëgg sëy seen sëy doom rafetul ñu ci bàyyi xel macha allah wax dëgg yàlla film bi neex na am na solo bu baax asalaamualeykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di ziyaara leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ko sàkku ci yéen di kontaan ci yéen bu baax di lu seen eh, seen li ngeen di def am na solo lool yal na leen yàlla dolli kàttanal bu baax dooleen leen ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nekk leen ci jàmm rek di kontaan bu baax ci série bi maîtresse d'un homme marié rafetlu nañ torop actrices yi acteurs yi yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan li ngeen di def am na solo lool yéen a ngi yee Sénégal njaay di yee àdduna bi yëpp man de ngi ba Maroc waaye duma ko raté chaque fois maa ngi koy suivre di déglu commentaire yi di dugg lu xew TV yéen a ngi ci jàmm rekk yal yàlla defal leen jàmm ak xewal série bi démb neex na torop torop torop sax neex na lool Marème kontaan nañ fi yow bu baax à ah, Cheikh Diagne yéen ñëpp daal yéen ñëpp rek mention spéciale à Marème Dial Marème Dial yow féminine nga li def am na solo mën nga sorol trop sax macha allah kontaane nañ leen bu baax yaa ngeen jëf nekk leen rek ci jàmm bonne continuation. asalaamaaleykum waa Maîtresse TV maa leen di nuyu di leen siyaare. di leen nuyu bi di wax série bi passé <clears throat> neex na trop am na solo trop wax dëgg neex yàlla neex na trop waaye joor moom ah waaye joor mi bon na de joor du mën a bàyyi xale bii mu firi xale bii na ko mayee ma naan mu naan ko tey doo fi naan ah xale baa ngi mar mu ngi xiif nangut koo jox mu lekk ba papaam ñëw mu koo yóbbu lopitaan joor bon na de na xam ne xale bii nii xale la xamul dara kii kenn du ko xale kenn du ko def lii nii xale moomu na la rek ah moom dina am doom de te doomi jaamur loo ko def rek dinañ ko fayeku sa doom moom xale bi doomam la parce que moom yaayam la woon ah. lu mu munti mel rek sëy bi am na rek na téye xale bi tamit mu def ko comme doomam dangaa gis sa jëlika sa yeneen yi yëpp dina ko bàyyi lu mu ko amee loon yëpp ak lu mu ko téye loon yëpp dina ko bàyyi parce que dina xam ne mu ngi téye doomam doomam bi mu ko téye téye bu correct waaw mu ngi koo toppatoo waaye nekk di di xale bi di ko def lu nekk di ko sonal lii baaxut de wax dëgg neex yàlla joor moom wax dëgg neex yàlla moom non théâtre bi moom yaa bileem naa ko si trop li muy def moom jigéen du ko def wax dëgg neex yàlla dafa war a bàyyi xel ne moom dina am doom ëllëg li muy def ñaaw na trop ba pare biram tamit keneen la yow biram mi dam mu ngi bugg a jaxase meeram ak gaay meeram ak yaayam yaayam boo xool ba pare mu dem si. meram mu dem si kii naka xariti meram bi di def diil yooyu noonu yëpp pour bugg a yàq diggante bi rek biram tam na bàyyi loolu parce que moom moo demoon ñaani jabar moo ko demoon takk kay kon bu mu yàq diggante bu mu def loolu noonu ah mère bi tamit dafa war a xam ne moom goro la yaay la dafa war a toog place yi yaay place yi goro dafa war a defar defar rek moo ko war waaye warta yàq ah na na defar mu jubal ak gars yi ñoom ñaar mu jubale la ak meram ñu nekk benn kër gi nekk benn loolu moo nekk waaram loolu moo nekk raytam waaye leneen lu muy def loolu yëpp dafay sonal doomam bi rek seex la muy sonal parce que seex moom bugg na meram ba pare ah konte na defar rek kër gi nekk benn loolu moo gën a correct ah daal loolu laa gis ci série bi daal am na solo trop neex na trop am na solo lu bëree bëri billaahi salaamaaleykum waa xalaat TV ah série bi moom neex na ñu ngi rafetlu seen liggéey liggéey bi rafet na set na série bi moom man moom Jooro ak Amina waaw man foofu moom bu ñuy wone Amina sama xol bi day jeex parce que dama bàyyi samay doom ci ginnaaw sama ginnaaw ak seen jabaru pàppa taxawuma ba xam ndax lu mel nii lañ leen di def wala defuñ leen loolu série bi moom ñëpp a ciy gis seen bopp man bu ma koy seetaan ba ñu wone Amina ak joor sama xol bi day jeex tàkk ak nim koy def ku yaay ku ne boo gisee loolu sa xol bi day jeex tàkk mais série bi moom ñu ngi yee nit ñi ñu ngi rafetlu seen liggéey tamit seen liggéey rafet na torop. asalaamaaleykum maîtresse maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm yéen ñëpp waa maîtresse maa ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen ziar maa ngi wootee Afrique du Sud maa ngi sibul seen euh, seen film yi vraiment am na solo lool kontaan nañ ci lool waaye joor moom mere naa ko lool mere naa ko mere naa ko li mu def yées na ba pare may wax mu jël xale bi di ko maltraité loolu moom métti na ma lool lool nee na ko bàyyi ne na bàyyi xale nee ko laal na sama xol dafa laal sama xol bi quoi. moo tax man il faut moom man moom xale moom boo laalee sa boo ko laalee rek laal nga waaw moom li mu def sax garaaw parce que sëy sëy la rek waaw bokk ñu ndey ak baay xaritam la waaw euh, ñun taxawaalu ñu takkante moo gën mu takk na ko si sina farta donc euh, sëy ba dagan na loolu amatul mais xale bi muy laal ci kër gi moom na ko baax na ko bare na ko baax sinon moom dina dina dégg lu mu def sama xol jeex na ko mer naa bu ko bàyyiwul nag dinaa ko envoyé ay yoo xam ne moom wallaay foofu lay toog di ko gis danaa ko dinaa ko dinaa ko sànni kot na bàyyi xale bi na ko bàyyi quoi vraiment kontaan ma lool ci li muy def xale bi quoi waaw wuu métti na ma xale bi ni mu koy defee métti na ma wala yaa si maa ngi nag afi sud moom sama fans la Lalla la dama ko bëgg lool lool lool lool mook Jalika ndax ñun ñu am fulla lañ ñu diñ lañ waaw Lalla nag li mu def bu doon tene beneen jigéen bu ci këram takkalee wujj comme noonu tamit. comme lan la rek ngay def xam nga yow sa jëkkër yëpp la yëpp goo xamante ne bu yoree gelam day bàyyi ba nga dem liggéey mu indi ko ci sa biir néeg ci sa kaw lal xam nga loolu neexul dafa metti dafa metti tamit kum doon yow tamit noonu rek ngay doxale waaw mareem nag moom leen rek moo a naqari ci moom wax dëgg yàlla ñime ngi ñime rek ñime na ba pare lii muy def nii bu ko bàyyiwu day yàq gën a yàq suñu éducation doom yi ndax xale yi sopp nañ ko torop torop torop torop torop waaye nag ni muy defee baaxu tena na moytu bu baax a baax a baax ni muy def ndax am na nitu yàlla yoo xamante ne seen xa xajul ci kenn yeneen film yi ñu ngi daw benn rek ki ci la jonge na bépp jonge waaye mosoo gis mu def yu zaayre yooyu keneen ak keneen ak keneen ci film bi maram rek asalaamaaleykum yéen waa groupe maîtrise maa ngi leen nuyu seen fans la ah, bu doon def sama témoignage rek ci film bi seen série bi moom neex na trop trop trop trop macha allah man maa ngi koy suivre dama ko bëgg lool lool lool lool lool dama ko bëgg su fekkente sax dama am benn gàllankoor ba seetaanuma ko ci YouTube bi laa koy seetaan chaque jour sama téléphone boo ko ubbee seeni vidéo rek moo si nekk. maa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm waaw man nag sama témoignage lan la woon kii daal moo ci marem daal ñime gim ñime ak zaayire gi mu zaayire daal naqari na ma ndax keroog bi nga xamante ne mook Cheikh jaañ ñi ngi def ligne de mer keroog ñu ngi koy setaan maak sama jëkkër ak samay doom waaye dafa mujj dafa jàppe dafa setaan jàpp feneen ndax xam nga dafa dina léeg-léeg dina comportement comportement yoo xamante ne yow doo mën a toog ak say doom nga di ko seetaan loolu tamit nañ ci xoolaat bu baax a baax a baax a ndax ñun tamit am na yoo xamante ni àndul ak suñu diine ba pare tamit àndul ak suñu cosaan te Marème moom wax dëgg yàlla ñime na torop torop torop torop wow na bët wow na bët lool te wow bët googu muy wow bët comme xale yi dañ koo sopp buñ koy xool dañu yaakaar ni loolu moo mën a moo war a nekk te loolu